Euh, tooñ nag moom mooy jël àqu jàmbur rek ci domaine bu nekk ndax kenn ku ne am na loo moom ci sa bopp am na tam àq boo am ci sa réew am na it àq boo am ci sa dëkk am na àq boo am ci sa lépp kon ka ñëw jël ko ci yow lu mu ca jël rek mhm. loolu tooñ la mhm. muy façon bu nekk nag loolu danañ ci ñëw ci kanam mhm. comme ni ko xaaj sa waxee euh, nit nag ni muy tooñee boppam ci boppam mooy comme ni nga ko waxee fekk lëndëm yàlla teg lëndëm teg leer nga taamu lëndëm ga dox ca loolu fa la ñàkk fayda yam mhm. ndax da tooñ sa bopp tooñ nag bari na façon mhm. xaaji njaat si junj na ko te mooy bi ngay tooñ sa bopp mhm. ak bi ngay tooñ sa borom ak bi ngay tooñ sa mbokk mu ñetti façon tooñ yoo nga xam ne benn bu nekk bu ñu ko développé dana yaatu ah bi ci yées nag gannaaw tooñ yàlla tooñ sa borom tooñ sa mbokk ci yées mm-hmm. waaw ndax yow boo tooñee sa bopp sax yow la concerné yaa xam fooy jëm ak moom waaye sa aq bi nga jël bëgg jëlaale aqu keneen mm-hmm. loolu la yàlla du mën a supporter mm-hmm. te e, tooñ itam dafay nekk mbir mu nga xam ne muy kër guñ koy defee muy dëkk bu ñu koy defee muy réew mu ñu koy defee ñett yooyu yëpp benn ca barkel te jàmm dafa wàcc uh-huh. yiw du fa wàcc ndax dëkk bu nga xam ne walla réew mu nga xam ne uh-huh. dañuy tooñante danañ ci ñëw uh-huh. ñi gën a am doole di tooñ ñi gën a néew doole réew moomu barke du fa wàcc waaw yàlla indi na ci ay ayat yu bari yoo xam ne daf ñu koy moytuloo parce que yàlla euh, du xeeb dara ndax li tax du xeeb dara mooy nit dafa rëy ci moom te buggul ku ko tooñal nitam moo tax yàlla yónni na ci yonent yi ci tooñ yàlla alag na ci réew yàlla alag na ci xeet ci tooñ ci ñetti tooñ yépp nag tooñ bi muy tooñ boromam tooñ bi muy tooñ boppam tooñ bi muy tooñ ay moromam benn bu nekk yàlla alag na ci xeet moo tax lu mat a moytu la ndax yàlla da ko dul jéggale par rapport ak yow mi tooñ sa moroomu gor ndax yàlla yoonam du ci nekk euh, dañu ko doon waxtaan ñuy wax dem dellu si dem dellu ci ñi faatu euh, dafay am ah. da ngay gis koo xam ni dafa faatu woon ñëwaat loolu dafay am ñu nettali ci benn anecdote boo nga xam ne benn nit bu faatu woon xam nga maam Cheikh def ne nit ñi dañ leen di parqué ñi war a dem safara dañ leen di parqué fii samumin wa hamimin wa zilli min yahmum la baridin wala karim innahum kaanu qabla zalika mutrafin mais parquet bi ci àdduna lañ koy defee ndax képp ku ñu jàpp mm. bala ñu la àtte dañ la park ba pare parquet boobu nag ñuy def doomu aadama bu war a dem safara ci àdduna ñu ne bépp jur am na ci jur yoo xam ne bokkuñ ci waaye ñaari jur yoo gis mu am ñaari wee mm. xar-xar mm-hmm. daanaka boo seetee rekk nit la woon mm. moo tax nit ñu koy digal sarax mm-hmm. mu am soxla walla mu feebar mm. ñu ne ko reyal gàtt mm-hmm. mu dem ca daral ga fekk ñuy yeew nag mm-hmm. mu jënd ko mm-hmm. rey ko ajoom faju walla feebaram wér ñu ne lu tax loolu est-ce que jëmmi jënd bi nga jënd nag bi rek rey ko la déedéet nit la woon mais yàlla da koy parqué benn mu tooñoon boppam wala mu tooñ moromam wala mu tooñ yàlla nga gis ci mbedd mi nga gis benn fas nit yéeg ci kaw fas wa ak saret ba sëf ko lu diis boole koog dóor nga yërëm fas wi fekk ka nekk ca kaw fas wa mooy jël àqam mooy jël àqam yow nag doo ko xam mais yàlla xam na moom loolu ci wàllu mystique dafa am moo tax euh, nag bi wala xar bi boo ko jëlee rek mm-hmm. rendi ko mm-hmm. Mm-hmm. yàlla defaraat ci yeneen arwaax loolu mooy faj sa soxla loolu mooy sarax ci wàllu gàtt su ko defee kon euh, àqu yooyu dafa am benn anecdote fi lay jeexale dama mos a taxaw benn mbokk kooku dafay dellu ci tooñ sa bopp ñu benn charrette romb sëf benn xar xar bi di waaj a am doom euh, doom ji génn na waaye génnul ba ba jeex mu ni ma ndax xam nga xar bi lu ko dal ma ne ko déedéet mu ne ma dafa tooñ boppam mu ne ma jigéen la woon mu ne ma dafa ëmboon doon yàq ëmb bi yàlla di ko piniir loolu tey mu faatu yàlla di ko piniir lii loolu mooy tooñ sa bopp su ko defee yooyu pour wan la tooñ ni mu grave mm-hmm. benn baaxu ci mm-hmm. kon nag yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla musal